jaajëfatee jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister la maa ngi Brooklyn New York waaw gars tey naaj bi dafa xaw a tàng nag moo tax ma xa ma ne xaar ma toog defal leen benn vidéo rek ci um, ndeysaan Ousmane Sonko Khalifa Sall Aïda Mbodj dañoo gis Aïda Mbodj yaayam gaañu ñu gis xalifa Sall dem fa jaale ñu gis fa Ousmane Sonko gis fa Cheikh Mbacke Baara Doli gis fa sëñ Abdou baro Baara Doli gis fa ñu bëri ñu bëri opposition bi mais Aïda Mbodj dafa wax ay wax yoo xam ne dafa xaw a jaaxal nit ñi tuuti bon Aïda Mbodj yaay moo gaañu vraiment ñu koy jaale jaale bu euh, bu mat waaye dafa mel ne dafa bëgg profité ci li yaayam gaañu ngir lancer ay message politique yoo xam ne ñun arrangé wuñu ndax Aïda Mbodj dafa ne yaayam dafa bëgg dafa bëggoon Ousmane Sonko ak Macky sàlla daal di juboo wax yooyu du waxu wax yoo xam ne da koy wax ci dëj waaw bu fekkee ne Aïda Mbodj dafa bëgg dem ci Macky Sall wala dafa bëgg liggéeyal Macky Sall na dem mu liggéey ak Macky Sall waye ñun opposition bi ñun pasté bëggu ñu liggéey ak Macky Sall gaay il faut ben affaire am affaire sentimentalisme ay affaire yërëmtalu yi mo amul bu len profito sen yaay dafa gañu comme Khalifa Sall nga ne da ngay recevoir Macky Sall sa biir kër ko xam mo la tecc 5 ans toroxal la sa yaay ba muy dundu ñaan na Macky Sall ba son ngir Macky Sall bayila Macky Sall bàyyiwu la am na nu mu doon demee sax sa yaay Khalifa Sall naqar mënoon na ko rey ba doo sax génn gisante ak moom tey nag Aïda Mbodj la yaayam gaañu bon bu la nit ñi di jaale bàyyil ba yëf yi sax passé mais ci biir dëj nga nekk fii di wax ay Macky Sall yëfu Macky Sall bu la ñuy wax wax Macky Sall ak ay juboo juboo mënatul am newoon naa leen Aïda Aïda Mbodj man wóolu ma ko parce que Ousmane Sonko ba mu demee Casamance di def euh, Bignona ba muy xëm Ousmane Sonko ba muy xam ci kaw Aïda Mbodj la xam mooy fi Aïda Mbodj di waxee jàmm la ñu bëgg ba muy wax jàmm la ñu bëgg ci la Ousmane Sonko daal di xam waaw man waxoon naa leen boobu ne affaire jàmm bu leen ko fi tudd ndax booy tudd jàmm day fekk ki ñu seqal moom it mu bëgg jàmm man waxoon naa leen affaire Casamance mooy Bignona bañ fa ñoom Ousmane Sonko demee ñuy wax waxu jàmm newoon naa ne ñii dañ ñoo yab waa Aïda Mbodj daf ñoo yab ñëpp ñoo yëpp quoi léegi lan lañu gis Macky Sall bëggul jàpp indi na ay nerf bi jàpp nit ñi di dóor Fuuta war a soogi nit ñi gis nañ ko ah ñoom Fatoumata Fuuta Tampi gis nañ ay nit yoo xam ne dañuy nekk seen kaw balcon Saint-Louis non au troisième mandat non au troisième mandat ñu yéeg seen ba seen biir kër jàpp leen comprendre gis nañ karam fu xàq nuñ ko def policiers yi nuñ ko def dóor ko moom ak waa nitu dëkk tay ñu yow ties maké ay bi encore bi maké parce que da fay dem di visiter ties ñu gis fa ay nerve yo xam dañu japp ñetti nit ñaari nit PDS dégg na ak benn nitu Pastef door leen ay dóor yu métti ba dégg na kenn ki sax mi ngi ci coma coma moy yang ci dund ak dé da nga xam xamato fo nek kon ay dëmbooj bu mu ñu wax waxu jam Khalifa Sall bu leen ñu wax waxu jam gay Maxal Sall bu bëggoon Vous du loi vous mu profitez ko ne euh, championnat d'Europe la di football kenn du de nan manifester Vous di def ay loi euh, le 23 juin mu xam que yi génn nañ loi ne wax nit ñi est ku terrorisme je pense que ku bëgg de gars yi nañu waxante dëgg ko bëgg jàmm duñ ko def kon Aïda Mbodj c'est vrai que ci naqar nga nekk comprendre ko waaye bu leen profité seen yaay gaañu na wala seen papa gaañu na Macky Sall ñëw bàyyi fa ay millions jaale wala mu yónnee nit mu bàyyi fa ay millions jaale ngeen ñuy wax affaire jàmm yéen ay député ngeen seen affaire dafa baax ay député ngeen namu leen dara yéen a ngi seen oto yéen a ngi seen essence yéen a ngi seen kër. yag ci système bi kon bu len ñu wax ay waxu jam jam moy xam lan moy jam Macky Sall nervi xam nga lan moy jam Macky Sall bay mafia kat kat kat menase, bu mi menacer xam nga lan moy jam loi yi ñu voté ñu fexé ba mu deñ bu ñu ci tuddé kenn terroriste xam nga lan moy jam bu la ñuy wax naan Touba Cheikh Tidiane Diaw gaajo ay terroriste dinañ taal jumaa tubaa xabru tubaa ay terroriste dinañ taal jumaa xabru euh, Laayeen Yoof loolu du jàmm waaw Moustapha Niass tey laa liir léegi léegi laa liir dafa am euh, euh, Baba Diawo milliardaire la porte plainte lu tax mu porte plainte parce que nee na Baba Diawo ko nax ci benn terrain jaay ko boo xam ne deux mille cinq cent mètres xam nga la mooy deux mille cinq cent mètres carrés ñaari junni ak juróomi téeméer mètre carré xam ngeen këru Sénégal yi euh, téeméer ak juróom fukk mètre carré rek lay doon nit yu bëri booy tey booy tabax kër cent cinquante mètre carré doon téeméer ak euh, euh, juróom fukk mètre carré mais moom terrain la amoon ñaari junni ak juróomi téeméer nee na dañ ko cee nax jaay terrain bi quatre cent millions kon Moustapha Niass bu toogee di xëccoo ay terrain quatre cent millions deux mille cinq cent mètres carrés te xale yi di dee ci géej gi mbas mi di rey nit ñi loolu war na leen wan ne ñun ñun amuñu jàmm kon képp ku fi wax ku fi wax ku ñuy wax affaire jàmm vraiment da ñuy tooñ Moustapha Niass mu ngi ci euh, système bi depuis kañ depuis temps ba léegi buggul bàyyi di xëccoo ay millions ay quatre cent millions yenn yi yabaatee la yenn ñaawalaate la est-ce que yéen a may dégg yéen may dégg bu baax waaw Macky Sall dem Thiès jox fa un milliard lu tax mu joxe un milliard ñoo xam ne ñu ngi doon ñaan di jooy un milliard boobu ba léegi mënuñu ko jot est-ce que du ñu nekk ci train bi cheminot yi mu xaar ba léegi di leen jox un milliard ba tey baax na ba tey baax na ndax suñu wax ji suñu wax ji baax na tax na mu ngi génn xaalis boo xam ne daf ko denc pour moom ak ak ak njabootam wala ak waa APR Les sax ñu ngi leen di ñu milliard di joxe loolu sax baax mais doyul loolu doyul bu leen ñu wax waxu jàmm bu leen wax waxu jàmm ndax Macky Sall mi ngeen ko seqal liggéeyul dara loo xam ne dafay wane jàmm kon Mbodj Khalifa Sall du ñoom ñoo ñu ciy gis nga jeunesse Sénégal boo leen politiciens yi ñoo leen di problème da ngeen di révolution comme ni ko tubaab Emmanuel Emmanuel euh, Defourno, mo fi génn di xas Macky Sall di wax né loi bi mu voté loi du loi terrorisme bi mu voté mom bu ko voté won 2011 mom dañ koy japp comme terroriste mom néna tubab bobu néna révolution mënoo ko def té du am ay ay ay sacrifice du am ay dé xalé yi sen révolution yéen koy défar sen bopp boo la ko defal seen bopp politiciens dañ leen di dañ leen di trahir

wala ñu mu seetaan leneen gis nga booy xeex yaay xeexal sa bopp ñun nag ñun ñi nekk diaspora balaa ñuy dee ñu naan wax ñëw leen ngeen bokk ci xeex bi yàlla bu tuddee ñu ñëw Sénégal dañuy ñëw ñun loolu lañ bëgg dañu bëgg ñëw senegal xeex waaye ñu ngi fi di defar suñu vidéo ñu ngi fi di yónnee xaalis senegal ñu ngi fi suñuy doom nekk ci terrain bi di xeex kon bàyyi leen di leen di ñuy xas ñun ñi nga xam dañuy ñëw di def suñuy vidéo di leen di leen di leen di leen encouragé tey bu ñu fekkoon Sénégal dañuy dañuy nekk ci terrain bi bu ñu waree jàpp ñu jàpp ñu bu ñu waree joxe suñu bakkan ñu joxe suñu bakkan billaahi wallaahi taalaahi xeex bi mënoo ko xeex te amul sacrifice bu fekkee ne ngeen bëgg nag Macky Sall nekk fi ak ñoom Moustapha Niasse di séddoo ay terrain 2500 euh, euh, mètres carrés ba pare di ko di xuloo seen biir milliardaires yi yéen jeunes yi ngeen toog amu leen sax salaire fukki dini salaire cinquante mille sax amu leen gis nañ fi. Euh, ay nit ay nit job euh, si jël leen di leen fay euh, quarante neuf mille cinq cent fukki jën yoo xam ne manqué ne téeméer ñuy jooy parce que weer bu jotee du leen ko sax fay dañuy daw daw ba dee di ko fay am na ñoo xam ne onze ans fukki fat fukki at ak benn ñuy liggéey foofu te kenn mënu leen sax embauché waaw bu dee loolu ngeen bëgg te salaire cinquante mille sax ñooñu ko am sax dañ leen di compter bëriwuñ da ngeen bëgg nekk ci dëkk buy ndóol dégg naa Omar Gueye nee na euh, ren Euh, euh, zodiac maanaam gaal yi du am euh, Kër masaar ndax Kër Massar du taa ba ay gaal du fa am Kër Massar de bu taawul c'est parce que yàlla ji moo ko bëgg waaye taw bi amoon daaw bu amaatee Kër Massar dina taa xëy na nag taw boobu dafa exceptionnel moo tax du am mais Oumar Gueye bu waxee ne taw Kër masaar du taa te ñu gis bërki démb mu wis rek dafa wis foofu yëpp taa gis nañ sax waa Dakar Buzz def ci benn benn ñun daal li ñuy wax mbéju kanam borom moo koy fajal boppam waaw man politiciens yi wóoluma ci kenn usman Sonko nag moom la ñu gëm parce que moo fi nekk moom la yàlla jaarale mu au moins sax mu mu indil Macky Sall problème mais Ousmane Sonko du moom moo ñu war a wax xeex leen wala bu leen xeex bu ñu jekkoo Macky Sall bañ ko jekkoo dañ ko waroon dañ ko fi waroon jëlee ñoom ak waa APR waaye saaga ngeen ma lu ne wax ngeen ma ko tey mi ngi nii. ñu jàpp ñoom Guy Marius Sagna ñoom ñëpp ñu taxañ leen ci benn oto dugal leen yóbbu ñoom ñëpp ñu jàpp leen ba Pape Alé Niang sax di leen wax ni ngeen xeexee xamuloo ni ngeen di xeexee ngeen may saaga parce que Macky sala dafa yàq senegal te dina ko gën a yàq waaw te am na nu muy demee ñu ngi defarwaat mu mu duma leen ñun ñëpp dumañu ñun ñëpp dumañu ndax loi bi mu voté sëriñ yi bàyyi ko ci. Nous imposé imposer troisième mandat Nous bu nous ñun ñun parce que nous ko fi waree fait. Nous wuñ ko fi du toog naan Nous dañ koy que choses. Sénégal ba mu Nous avons lu ñuy nous fait toog nous di indi 2024 def euh, euh, euh, troisième mandat Nous gën nous ñun dañoo nous ba pare moo Nous avons mu Nous nous politiciens à 100 Nous Khalifa Sall ngi Euh, kii Sall mm, euh, euh, Thierno Alassane Sall ñoom ñëpp a ñoom ñëpp a bu leen wóolu kenn xeex leen seen xeex bu Macky Sall bu jalgatiwaatee ba ngeen war a génn boo leen génnee jëleen leen seen responsabilité waxuñu ne kenn génn léegi mais bu ñu defee dara loo xam ne dañu bëgg noot nit ñi ba nit ñi génnaat bii paa bu leen déglu Ousmane Sonko wala ngeen dégg keneen naan leen dañuy gunge Macky Sall ba 2024 ndax kat jàmm boo ko bëggee yow mii ko yow da nga ko war a xeex yow sa bopp waaye nga bëgg jàmm bëggoo jàmm ba pare di di créer ay problème loolu c'est pas sérieux waaw gars yi like leen partage leen abonné leen Mister Shake la ba beneen merci